والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax waaw délégation ñu jógee Touba si njiiteeru si njiitee Serigne Sam Mbacké moo ne moo nekk mag bi moo leen jiitu ak sëriñ Mamoun Fall ak sëriñ Mourtada Gaye ak sëriñ Modou Faye ñëwoon nañ fi daaw pour yaatal yaatal mbindi mbindi bi dañoo bëgg a bindi téere boo xamante ne téere bu waa Sénégal ñoo ko bindi ñi si def uh, ay musaabaga mbindi quraana ñëwoon nañ fi daaw ñëwaan nañ fi ren tamit loolu rek moo leen fi indi uh, pour ñu man ko yaatal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi li nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam. maa ngi wax tamit ci turu euh, société bu ñuy wax c s moom moo nekk nii C3S liggéeyukaay la boo xam ne ñoom dañuy yëngu ci dañuy yëngu ci jaay ak jënd lu jëm ci aluminium ak verre. am na ci bu nekk fii jege Tamba am na bu nekk fii tamit euh, Ziguinchor am na Dakar ak fépp loolu la liggéey waaye li ci am solo mooy société la boo xam ne ña fa nekk di liggéey waa doomi daara lañ ay sëriñ ay ay waa daara lañ dañoo jàng alxuraan yàlla dogal ñu yaxantu mooy ñu jaay ak a jënd ba suñ borom def loolu barkeel mu barke daal di yaatu te société bu ci nekk ci Sénégal ak ci àdduna da ngaa am loo xam ne danga nga ko warloo génne mu jëm ci askan wi mooy ngay jàppale poste de santé yi wala ngay jàppale ñiy sport wala ngay jàppale ñiy social loolu société bu ci nekk da ko war loolu moom la ñuy wax responsabilité sociétale euh, C3S nag yàlla dogal comme que ay doomi daara lañ ñoom ñu wax ne comme que ñun waa daara lañ bu ñuy jël di ko delloowaat ci société bi kon ñun ci alxuraan lañ koy delloo léegi nag loolu moo waral ñu ne kon nañ xool ci ban barab lañ war a mën a jàppe ci liggéey alxuraan bi euh, ñu gis ne Sénégal gii euh, nja mokkal alxuraan dafay am tànk dafay toog foo jëm ci Sénégal ñu ngi mokkal ba mokkal gi mi ngi eggaat ci sax ñuy boole ci léegi fi mu toll nii lépp luy tajwid Sénégal egg na ci foo xam ne fi mu toll nii mi ngi yàllaa ngi def mi ngi yokk baax a baax fu ñu dem ci àdduna ñëpp gis ñu ñu ne nag ñu seetlu ne li mokkal gi jëm jëm kalam ak ak tajwid gi ndekete bind ga moom dafa moom noonu lay demee ginnaaw te loolu boo jëlee biir biir réew mi ñi nga xam ne ñoom seen aada lañu woon boo duggee ba ci biir fi mu toll nii ndekete ñoom ñu ngi ñu ngi koy bàyyi. kon ñi nga xamante ne tamit nag daaw ñu bind foofu moom kenn kenn waxaalewu ko kon loolu moo waral ab société bi kon ne kon ah kon naa ñëw jàpp ci liggéey bii nga xamante ni kon mooy ñu delloosiwaat siwaat mbindam alxuraan te yaatal ko moo tax mu ñu tudd ko yaatal mbindam alxuraan mooy mbindam alxuraan ñu fexe bam yaatuwaat ci Sénégal gépp ñëpp di ko bàyyi waale xel ci mbind mi loolu nag pour pour mu mën a am pour delloo mbind mi dafa am ay yu bari yoo xam ne dañ koo seetlu ne amaana buñ ca jaaree mën naa am su boobaa loolu dina ko jàppandal ñu ne ba ca jiitu mooy seetlu nañ ne euh, téere yi ñuy jànge dafa amatul ci daara yi téere yi nga xam ci ni moom la xale yi jànge mooy téere yoo xam ne machine moo ko bind da koy imprimer kon xale bi mënu cee jàng bind ñu ne kon kon kat nañ fexewaat ba ay téere yi xale yi jànge mu bari ci daara yi loolu moo ci la daara ci la société bi di dox ba tax na daaw jéeg ñëwoon nañ fi indi ay téere bi yoon tamit ñëwaa nañ indi ay téere waaye téere yi ñu indi dafa nekk aw yoon woo xam ne dañoo dox jëm ci mu nekk ab kaamil bu mat sëkk mu mu tayaatu borom xam-xam alxuraan xam nañu alxuraan bind ci ab jukki uh, uh, liñ ci bind nii nga topp ko toppaat ko ba boo ko boo ko moolee ñëpp mën koo gis te duñ ci wax dara ak la am sart moo gaawut loolu moo tax ba mun egguñ foofu waaye incha allah taala loolu moo di loolu mooy jublu gi ngir xale yi am téere yuñ jàngee buñ ci jàng di ci xoolaale rek dañ ci dañuy mënaale bind loolu loolu daa ànd kon loolu mooy benn fànn gi mooy fexe ba ay téere am ñaareel ba tamit bi gis ne bind alxuraan dafa am xam-xam bu sëñ Sam dina ko leeral mu xam-xam boobu nag faaw ñu taxaw sëriñ daar yi ak ñi jàng defal leen ay formation formation yi bari ci réew mi loolu tamit société bi tàmbali na koo def daaw jéeg daaw ren tamit dina ko defaat waaye comme que dafa nekk lu muy soo a tàmbali da ko amale Touba ñi ñëpp ñëpp ñu ci mën a bokk mu te nekk ci biir réew mi buñ dikkee bu mën nañoo jàpp date bi danañ wax date bi bu buñ dikkee mën mën nañ caa bokk waaye nag dañoo am pas-pasu yaatal ko ci réew mi mu mu yaatu loolu incha allah tamit sëñ Sam dina ko leeral bu baax a baax mu ñetteel ba tamit ñu gis ne soo bëggee mbir nit ñi fonk ko ci jàpp ko te duñ ko fàtte rawatina lu ay xale nekk mu dangay fexe ba mu am neexal moo tax société tamit organiser concours boo xam ne at mu jot da koy defar da koy organiser wax ne képp ku bëgg bokk ci concours bi mën ngaa ñëw bokk ñu organiser ko kon lii yii yëpp ay buntu la yoo xam ne daal société bi jàpp na ne bu ci jàppee ànd ko ak waa alxuraan ak waa daara yàlla mën naa def mbind alxuraan mu dikk mel na meloon wala sax mu raw ko euh, natafadal bi taqdimi taxiya tayiba islamiya lakum jamian وفي المقدمة هذا الشيخ أحمد عمار هذا الممثل للشيخ نقدم له التحية وللحضور جميعا في البداية كما تفضل به أخي هذا بالمحلية وبالولفية كان يشرح سبب يعني القيام بهذه الجولة سبب ذلك يعود إلى أننا منذ سنتين تقريبا قمنا بجولة في هذا المكان يعني المبارك لنفس الأسباب كما علمتم شركة سيت رائس شركة أخا مهر خريج المدارس القرآنية وفي النهاية تفضلوا تعاون مع المعلمين الذين في المدارس القرآنية بتقديم مساعدة لهم وفي هذا مما لاحظنا an alquran alkarim min haythu altajwid wa tilawa fihi taxaddum kabir yaani min jami al amakin fi sénégal wa aydan xata fi musabaqat adduwalia sénégal min adduwal allati tataxaddam daiman fi lmusabaqat min haythu altilawa waltajwid wa ma ila dalika wa min haythu yaani alxat walkitaba mima laasna anna kitab alquran alkarim kama kana ajdaduna badat tatalaasha wa taxtafi tadrijiyan من عادة نحن في في طوبة أنا شخصيا بعد حفظ القرآن الكريم كتبت مصحفين بيدي هذا وابني أيضا بعد حفظ القرآن أن يلتقي بالجامعة هذا عادة عندنا وهذه العادة مما لاحظنا بدأت تتلاشى وتختفي يعني في جميع الأماكن الذي كان معود فيها بغض النظر عن الأماكن التي لم تكن معود فيها إذا الشركة تريد أن تتعاون معنا لإعادة هذا التراث القرآني حفظ القرآن الكريم تلاوة وتجويدا مع كتابته عن ظهر قلب عن ظهر قلب وذلك لا يمكن إلا إلا بمحفزات ومشجعات ولهذا أقامت مسابقة سماها مسابقة وطنية في رسم القرآن الكريم حفظه مسابقة وطنية في رسم القرآن الكريم حفظه هذه المسابقة للمشاركة فيها هناك أشياء وشروط للمترشي الأول حفظ القرآن الكريم كاملا لماذا هذا؟ أنا المسؤول عن إعداد الأسئلة أختار في الأماكن كلها بعد هذا يتم جعلها في ظروف والمترشي يختار الظرف الذي يناسبه في الطاولة يعني عند فرق كل سؤال موجود فيه هو الذي ما يكتب إذا لا يمكن أن تشارك إلا بحفظ القرآن هذا لا بد من إجادة علم الرسم كما هناك الخواعد الإملائية وكتاب القرآن الكريم يقولون كتاب القرآن توقيفي لا يمكن أن تكتب القرآن الكريم باللغة العربية الرحمن ألف محذوف بالعربية قواعد خاصة في رسم القرآن الكريم لا بد للمشاركة يعني في في المسابقة مثلا تكتب كلمة لا أذبحنه لا أذبحنه أو بسلطان مبين سورة النمل لا أذبحن لام ألف هناك ألف دار هذا يعني ما موجود في في في اللغة العربية ولا هذا خاصة للقرآن الكريم هذه هذه القواعد الرسمية لا لا بد أن يتقنها المشارك أو مترشح للمشاركة فيها ثانيا ثالثا إتقان الضبط علم الضبط كما عرفتم هناك كلمات يعني لا تسكن هناك ألفاظ وصل هناك ألوان هذا كله يجب أن يحترم المترشح إذا لابد حفظ القرآن كاملا ثانيا إتقان علم الرسم ثالثا إتقان يعني علم الضبط رابعا أن يكون يعني جودة الخط أيضا جودة الخط من المهارات التي لابد يعني للمترشح مثلا هذا الطالب آه هذا التلميذ هو أول من فاز بالمسابقة النسخة الأولى شيخ أنت قاوان هو الذي كتب هذا بيده هو الذي كتب هذا النسخ بيده نوريت يعني توزيع هذه الرقعة بحيث يتمكن التلاميذ أينما كانوا في سنغال يشونون يعني القتل جيدا كما يحفظون القرآن الكريم المستوى في الحفظ جيد في السنغال ولكن المستوى يعني بالخط يعني غير يعني متساوي هنا لو قمت يعني بجولة تفقدية تسأل كل يسمع لك سورة الفاتحة كل يسمع سورة الفاتحة من بداية النهاية من حيث القط والله لا لا لا, لا يكون لك 20% لا ابدا اذا المستوى في الحفظ والمستوى في الخط غير متساوي نريد ان ان ان ان يتقارب المستويان يعني الحفظ يعني والخط هذا كان في زمن النبي عليه الصلاه الصحابه كانوا يحفظون وايضا في نفس الوقت كانوا يكتبون القران الكريم هناك يعني كتاب للنبي عليه الصلاه زيد بن ثابت والليل الذي كانت تكتب القران الكريم في زمن النبي عليه الصلاه والسلام idan kitaab alquran alkarim walxifdu yaani daiman yatalaazamaan alxifdu huwa alladi الحفظ وحده ولا يكفي لحفظ القرآن الكريم نحن نموت إن لم نكتب بعد موتنا الذين كانوا يحفظون يندرج حفظ القرآن الكريم لا بد من إعادة هذا الدراسة لأنه في قوله تعالى في سورة النحل إنا نحن نزلنا الذكر لا لا في سورة في سورة الرعد لا لا لا في سورة هجر إنا نحن نزلنا ذكر الحفظ هذا لا بد له أن يكون له يعني ملابة أشياء يعني الحفظ يعني في القلوب ولكن الحفظ أيضا يكون في السطور إذا نحاول جمع هذا هذين الأمرين حفظ القرآن الكريم تلاوة وتجويدا وأيضا ورسما وكتابة تلخيصا شيخ أحمد عمار أي لهذا قمنا بهذه الجولة إذا المسابقة كما علمتم هناك تباين واختلاف في المستويات في من حيث جدد الخط لذلك تم إعداد مسابقة خاصة للأقاليم الستة إقليم ماتم وكولدا وزيغانسور وسيجو وكيدوغو وكولدا مسابقة إقليمية لهذه الأقاليم الستة مما لاحظنا نوع الخط من هذه الأقاليم الستة متقاربة نوع الخط من الأقاليم الستة متقاربة أما هذا النوع يعني غير منتشر هنا لذلك هؤلاء الطلاب هنا يتشاركون مع نفس الأقاليم في نفس الجودة قد يعني يتكاسلون لأنه دائما هم الذين يفوزون بالمسابقة لذلك تم تخصيص خاصة إقليم يعني مسابقة خاصة لهم أقاليم الستة من حيث يعني حيث يتدرج في المستوى في الخط وفي النهاية أن يكون مسابقة وطنية واحدة لجميع أقاليم السنغالية كل من يعني وصل إلى هذه الدرجة يمكن أن يشارك في المسابقة الوطنية ومن لم يصل إلى هذه الدرجة يشارك في المسابقة الإقليمية إن شاء الله تعالى في شهر أغسطس سيتم فتره يعني التسجيل للمترشحين والمشاركين سيتم إن شاء إبلاغ إليهم إن شاء الله تعالى في هذه السنة ليشارك الجميع في في المسابقة الوطنية أو في المسابقات الإقليمية يعني الذين لم يصلوا إلى هذه الجودة تلخيصا هذا مع أدب هذه السيارة هناك أيضا جوائز يمكن نوعية 6000 6 ملايين للفائز الأول 5 ملايين 5 ملايين و6 آلاف للثاني وخمس ملايين للثالث يعني و و 500 آلاف للذين وصلوا إلى درجة التأهل insha e famminde en immande maɓɓe ɓe garino ɗo rawani oɗo sharika biyeteɗo c 3 ko sharika mo ganduɗa ko almuɓe janggunoɓe alqur'ana ha gasni alqur'ana ina golla ɓiɓɓe almuɓe ɓe mbaɗi société maɓɓe e eɓe jeeya hen armiño eɓe jeeya hen gueɗe gueɗe kala susiyete noon ene foti yaltinde e hoore mum hunde ina wallita yimɓe ɓe no gandirɗen ni rendo ngo ɓe hen ballira cellal ɓe hen ballira ɗum ɓe hen ballira ɗum ɓe hen ballira tawde woni ko koye almudagal ɓe giwi koye duuɗe alqurana ɓe giwno ɓe mbaɗoyi gollirgal maɓɓe ha gollirgal ngal watti yencinde ko foti yaltude hen faata e rendo he ɓe miiji yo fatir banggue alqurana tawde koɓe almuɓe ɗum ne jeeya ko immini ɓe nde ɓe pellitiri ɗum fatir to banggue alqur'ana kadi ɓe tawi alqur'ana o to banggue sénégal ɗum nde dursitade nde état e juwid o moussawa sénégal ene yetti hen e nokku la basabi saabu no wayi foof enen hay mousabaqaji baɗoji dawliya ɗi hay ɗin sénégal naɓe ne jaaha hen tawa kadi kettani caggal deke to banggue jangde alqur'ana ha reena ɗum ha moƴƴina ɗum nde tajwid o ɗum ne moƴƴi no fewi wo amma to banggue bindol ene yaytiri caggal teskade ko heewi hen joni defte jangguirta o wi kamɓe to touba ɗum kam kamɓe ɓuuri wade noon o wi kanko o e hoore makko o windi kamilaji ɗiɗi kanko o ɓiyi ko janggi reeni haade mum yaade université oma windi kamil kamɓe to touba noon so neɗɗo reeni windat kamil taw wona ene timti taw ko ala zahri ɗum noon hay to maɓɓe to eɓe teski ɗum ussi to ɗum alano to kam mi anndano wayi joni noon ɓe teski tawde bindol ngol ina welsinda nde ɓeɗo gimmini wadde ɗum ɓe jiiɗi hirjinde hen sukaɓe ɓe e hirjinde hen jangguinoɓe ɓe ɓe tawi yo waɗane musabaga waɗane musabaga tawa yimɓe ɓe ene haqqillaji yimɓe ɗi ne dutte yo tesko e bindol he o inde wonno kadi bindol alqur'ana jeeyako hen huñade alqur'ana han taw wawa windude firtani neɗɗo o reeni kadi ɗum ko gonga nde wonno bindol alqur'ana ko taw qiifi ko hunde nde ganduɗa ko rasmu sahaba no windirano ni wiya rasmu sahaba tan ni kono rasmu o ko noon jippori saabu ene anda kala aya jippinoɗo so nabi sallam jangi aya o windanoɓe moɓe ɓe mbaɗatno ardu ɓe mbaɗa ardu ko windi ko o sata sone feewi o qirro ɗum so fewani fewnite deke firti bindol alqur'ana ngol wona sahabaɓe ne beela tan ene bindi ko hunde nde ganduɗa ko noon jippori hono no heɗortono jangde nde ha sella ni ɗum ɗo ko min tan ɓeydi ɗum hen kanko o haalani ɗum kono ko noon wayi nana sallam heɗortono jangde ha sella ni ko noon o sattortono ko winda ko kala ko winda o waɗat ardu e makko aywa ɓe o wiya ko ko ɗin kayitaji gaddoya mbaɗanoɗi ardu e ko ɗin gaddoya kadi ɗiɗi ɗina ceedo oɗo kayit o waɗanoma ardu ha o jaaɓi ɗum mm, wonɗo ɓe uh, mbi sowona ayeje ɗiɗi sowona ayeje ɗiɗi uh, aya goto uh, aya goto woni ko suratul ahzab woni ɗo wiyata wa minhum man qada nahabahu ko adi ɗum rijalum sada minal mumini minal muminina ma ahadullah alayhi one jaayeje ɗe keɓano gaddunoɗo kanko windana ɗum ne sallam elle ko sabi zeyd ibne sabit wiji holone mabɓe ala kulle en ko goto e sahabiyankoɓe kam winduno nde addi ɓe cali wattude ɗum e deftere he kañum e laqat jaakum e faminhum minal muminina rijalum ɗe ayeji ɗiɗi o addani seedeji ɗiɗi wonde nde o windi nde na sallam ne tawa waɗi arde o heɓani seedeji ɗiɗi ɓe cali wattude ɗe hen ɓe jiyoy noon hadis ne salah sallam ne wiya kanko omo yoni seedeji ɗiɗi ko ɗo ɓe jaɓoy ƴettude lagat ja akum ɓe mbatti heen ko ɗo ɓe jaɓoy ƴettude minal muminina rijalum ɓe mbatti heen hawni ha ɓurti ala kulle haalin binnol ngol ko ngol taw qiifi no jiiɗa alqur'ana windirani a wiyata aɗa winda ɗum e arabiya sellata masal ɗum o waɗi misal o wila asbahannahu enen fof eɗen gandi la asbahannahu sa waɗi lam alif to banggue jangde kono noon sa ittimo tan a ya andu a waɗi bone eyyi yo andu a bonni ɗum ne heewi a banaynaha bi aydin wasama a banaynaha bi aydin enen fof eɗen gandi bi o bi ayyamillahi ɗen eɗen gandi nan ɗon ko ni windori a suusa ittude sawfa yutillahu mo himlani o ko neɗɗo wawi makko yo ala kulli haalin eh, rasmul qur'ani bindol alqur'ana ngol ko ngol taw no waɗirani ko noon tan goppirta a wiyata aɗa winda ɗum e sifa arabiya ne noon ko ɗum woni ko immini ɓe tawi tawde mum sabaka jangde kam ene woodi ene wuuri holno ɓe mbaɗata ha ɓe gurtina jangde e ngol ɓe nawri oɗo mum sabaka to banggue bindol bindol ngol noon saɗa yiɗi jeyeede e musabaqa he a ƴeewat safaha kayit mbinda heen alqur'ana ɗo joleɗa fof mbinda masa ko adi fof taw ka denɗo ɗum woni ko adi nde wonno ka denɗo o dartira janngo e jaam so musabaqa o ne waɗoye ɓe gaddata ko enveloppe mbaji ne waɗa nder to ayeje ne winda ne waɗa nder ne kola ko an suɓoto enveloppe totta lajona o ɓe ceeka ɓe walla ɓe jiiya toon ko winda ko wiye ya windoyɗo fodde naggam sa renan qur'ana mbaɗata kadi ko ɗa tan joñotoɗa mbiyeɗa yaɗa binda gaddanamin ɗum waɗi ne harjini neɗɗo o rena alqur'ana so tawi ko denɗo qur'ana kadi so omo yiiɗi wonde mo sharik o e, to banggue duuɓi ɓe toɗɗaki duuɓi sa yiiɗi gon mamiraɗo wona haaju mabɓe sa ƴetti ma mbawa noon rasmu kam mbawa kadi dab nde wonno ñawoje ɗe eɗen gandi ko wajjata eɗen gandi ɗum ɗo ɗiɗo couleur ɗum fof nan toon ɗum fof yata waɗa wawi ɗum fof ka baɗoyowo so tawi aɗa jogori wonde mo cariku a ƴettat kayit binda hen fodde safa ha heewa mbaɗa hen numéro téléphone ma so yontoyi maɓe ko mois de août noon ɓe namdoyto musaraka o eɓe teski noon to banggue bindol région kolda e région euh, matam e région sédio e région zigansor e keedugu ɗiɗo région jeegom to banggue darade kuuɗi ɓeɗo juuɗe mum ɗeeɓi nandude eɗen gandi kadi kamɓe ɓuuri en wawde windude région to banggue dakar en to musidɓe men ɓe ɓuuri en wawde darade bindol ɗum ko hunde nde gandi anda seɗen gandi ɗum kono hunde wonde han joni noon ko ɗum ɓe teski ɓe tawi so tawi ɗi ga région ngaji mbaddama toon ɓeega ko yanoɓe tan gonata saabu kamɓe mbawi en to banggue darade bindol ɗum waɗi ɓe pecci ɗum ɓe mbaɗi musabaga to on toon banggue ɓe mbaɗi musabaga o ga banggue teskade juuɗe ɓe ga ɓuuri ɓuuri ɓe gaddi ɗiɗo kayitaji noon beele neɗɗo o wona e ekkitade e wadde feere no wowiri bindol ngol ene yaadoya hen ha wona ene wawa towtoyede o to musabaga saabu ene hata jina hen bindol darigol moƴƴol wona tan yo sellu tan naam yo sellu kono kadi yo moƴƴu yo feew fonan toon so tawi ko ngol to bindol mawgol mawgol toon musabaka mawɗo o on so neɗɗo gañima ne heeɓa million ŋaji jeegom dewɗe hen one heeɓa hedde jeegom e feccere joyyi e feccere dewɗe hen one heeɓa joyyi musari ko fof noon ne jogui ko heɓata fodde kam tinnare e musaraka muɗum o eyyi ko noon ko ɗum woni ko yidde tan ɓeyda tinnine ɓe gadda ɗiɗo kayitaji neɗɗo ne wawi nawde ɗum to duɗal mum wona e wallude almuɓe ɓe ɓe gona e ekkitade ngol ɓe gona ekkitade gotel gotel ɓe gona ekkitade wawde rendinde ɗum eyyi o wi oɗo ko o woni gañinoɗo ko on windi hay oɗo jokid jusu amma o kanko windi ɗum gañinoɗo kanko windi jusu amma wonɗo par hello hello ɓe mbaɗiri ɗum walla par kayid kayid ɗum ɗon kadi ɓe gaddana en ɗum fofof ko ha almuɓe ɓe jiiya ɓe ganda ko almuɓe hono mabɓe mbaɗi ɗum wona defte bindaɗe mbaɗa imprimante fewna tan muula tappa gadda ala ɓe ganda deke ne wawi wonde neɗɗo ne wawi rewde e bindol he wooda ko dañoyi eyyi eɓe jiiɗi noon wono ya kamil eɗen ganda no windude alqur'ana ha sella ha wona hay goto itata e mum ella wona noon weeɓiri ɓe tawi yooɓe jaaru seesa seesa ɗum woni ko jiiɗa ɗo ko nde noon e namdi alqur'ana no gandirɗen ni eh, sa wiya golɗum e keña tan joni joni hay saɗa wawi ala kon ko haali <laughs> ko ɗum woni ko jiiɗen eɓe jaarani ko heddi ko so koɓe yawtoɓe noon ha ha yesso elle ko heddi ɗum ɗo anta binicmati rabbika bimajnun